asalaamaaleykum euh, mbokk yi ñu ngi jégalu ci retard bu ndaw bi ñu am ci seen émission muy door euh, di jégalu tamit euh, ci Adama Cissé parce que mu ngi ci circulation bi ba léegi eggagul waaye si studio bi ñu ngi ànd ak Bouba Diop kenn du ko présenté Sénégalais mu nekk ci mouvement politique bi tudd taxaw tem waaw ah. té Bouba job euh, tamit Adama mu ngi ñëw moom maire Passy la tamit bokk majorité présidentielle Bouba job. bokk aussi ci manam langue politique bi xam ngeen né fan yi dañuy dem ci élection yi di ñëw 31 janvier bi di ñëw loolu nak élection yi nag lembene réew mi ñepp a ci wax di xol nak la wara démé dañuy woo indi fii di xol Bouba Diop élection locale yi ñu jëm ni hmm. yeen enjeu lañ ci wara xaar. waaw Alassane li may def d'abord mooy euh, gërëm la li leen jaajëfal. ci weg bi ngeen ñu weg euh, boole ji ci waxtaan wi euh, solos waxtaan wi euh, kenn réeréwu ko mbir ma leen di jaajëfal itam ci li ngeen di góorgóorlu ci mbindum wolof bi dama bokk ci kuréel gu ñu tuddee alarbay làkki réew mi jërëjëf seetlu nañu yéen di ngeen ci góorgóorlu waaye sama taxaw temm bii na ngeen ci yokk ñaareelu mim bi ñaari mim ñaari mim la waaw temm waaw temm waaw ñun xam nga euh, dañu euh, ñu neexee sax ñu ni taxaw jonn waaw euh, mbir mi nag dafa am solo ñëpp xam ngeen ni foofu lañuy jublu te mbir mi lu tax mu am maanaam man defe naa ñeenti pàcc gis naa ko ci benn bi mooy sanc baat boobu yow dégg wolof dégg pulaar ak dëkk wuti na mais sanc boobu man dara laa dëkk xam nga sanc am na dëkk yu bëri soo dee làkk anglais dañuy def différence entre lu ñuy wax euh, the town ak the city mm-hmm. lu tax doomu aadama mu gis loolu dafa gis ni nit xëy na da ngay sanc mën nga dëkk mën nga am réew euh, am na ay pàcc itam ci àdduna yooyu dafa laaj déggoo laaj noo koy saytoo Euh, ngir jàmm ngir màgg ngir féex ngir wér ngir mucc ngir koom-koom ak itam nooy sàmmee sa diina wala sa ngëm sa xamb yeeg yooyu fu doomu aadama nekk dafay am loolu tax xam nga waxtaan woo dafa am maana mm-hmm. léegi euh, itam saytu bi adduna ba mu sosoo ba léegi su gàttal ñaari mbir moo am réew ma ay buur nekk fa ak ay bumi bu fekkee wàllo bi nga xam ne moom laa gën a miin nga dégg ñuy wax kii Béthio am na fa waaye nag Sénégal te boo yàggee gëstu xam ni fu mel ne Ndakaaru fii ndey ji réew moo am fii xam nga xam lébu yi xamuñu buur lu tax te loolu nag boo demee France boo demee Amérique lu réew yu bare noonu la jaaree bon nag waxtaan boobu bu ngeen ko wooyee fii mu am maanaa gëstu nag daf ci am maanaa li ñuy waxtaan tey téere yi am nañu gëstu ko man université laa nekk xam nga am na ñu si gëstu amna na lu nga xam bind nañ ko ci li nga xamni ne dafa mujjoon am tanum njiit yu mujjoon yi ak fuñ ci tollu koku tam mën nañ ci wax ak itam fu jëm nag ndénkaane yi xam nga bokk na ci pencum réew mi ñu wax assise nationale uh-huh. ciow li gis nga fan yi ni mu bare uh-huh. amna lu ñu wax ci lolu buñ ko topor jamm am ci réew mi comme topp ñu ko eh, fitna bare na fi te itam fuñu jëm ah, doyna war de uh-huh. lolu tax waxtan bi man ñetti pàcc yooyu euh, bo ci bëgg rek ñu dugg ci xuus yi. incha allah Adama Cissé ñu lay nuyu xam naa circulation mo la mo la téye euh, léegi en ah, yow maire nga passé nga te tamit euh, société civile nga nga gën a jege ban mooy enjeu élection locale yi nii. Alassane jërëjëf ci invitation bi maa ngi nuyu sa auditeurs yi di nuyu Sénégal yëpp di nuyu aussi sama naataango bi toog foofu enjeu élection locale yi mun nañ wax ne. Euh, c'est ñetti enjeu on peut dire ndax euh, actuellement population yi soxla nañu de seen ay njit ci collectivité locale yi le le parti les partis qui sont autour de la majorité présidentielle soxla nañu réaffirmer wat seen majorité conforté wat ko bu baax a baax gën a et les partis d'opposition aussi donc troisième enjeu soxla nañu dem à la conquête

alors euh, ndax xam nga tey dañoo nekk phase de décentralisation maanaam l'autodétermination bi nga xam ne nii moom la sunu maam yi doon indépendance léegi autodétermination boobu la population locale Nous ñoom tamit bëggal seen élection locale boo koy seet mooy ëpp sax enjeu élection présidentielle parce que l'élection présidentielle la station l'institution présidence sortir sori population de telle sorte que souvent du du melni élection locale parce que élection locale élection de proximité là. Madame, c'est le c'est le c'est les élus qui se déplacent qui font des porte à porte qui sont en contact direct avec les populations ñu leen di wax seen soxla wala ñu leen di xas donc élection bu metté metté la bu bëri enjeu. Euh, Bouba Diop élection bi gis nañ ko euh, si manam euh, dialogue national bi amna ben lu bees duñ ci duggal même bu fekkee xëy na jëlaguñ décision bi moy ab léegi maire bi dañ koy élire au suffrage direct. Mm-hmm. xam avant de non de da nga don élire maire. Mm-hmm. Euh, population wooteel diw. Mm-hmm. mais buñ ñu conseil municipal bu réuniré tan ki xam ne xëy population bi tanuñu ko. mu nekk sen maire. waaye légui eh, liste yi dina bari kon. yan yan matuwaay la ñu war jël pour ñu bañ a retrouver wu comme situation bu ñu amoon fii ay dix mille quinze mille euh, xëy liste sax yu bari. waaw xam nga Alassane léegi bi ma lay wax dama ni eh, nit da ngay jiital sa xel. xam nga lii fi xew ti am ñi ñu fal ak ñi ñu falul dañu war a dugg ci jeexital bi jeexital bi tey jii Sénégal amul fenn fu nit ñi ni am nañu mbégte ci lii fi amoon ak ñu ñu fal ndax euh, soppi nañu lu am maanaa ci réew mi kooku gis nga téere bi sa benn xarit naatangoo moo ko bind mhm. te yéen kii Mamadou Albert Sy mhm. bi ñu defee élection yu mujj mhm. suma rakk la suma xarit la bind na ci téere bu nga xam ne ku ciy waxtaan ci mbir da nga ñëw fii parce que wax na ci lépp li nga xam ni am na maana ni mu demee woon yéen yéen a kaay lu ngeen ci wax ñu ñuy nekk ci mbootaay yu ànd ak jamono parti kii téere bi ci université moo ko génne mool ko ku ci am leneen loogu ak itam lii nga xam ni moom la ñoo acte trois xam nga xayma nañ ko lan lañu wax biñ ko xaymaa gis nga téré bi ki kay bi ma yoré ni mhm. bu la nexé nga photocopie ki gouvernement bi moko génné won mhm. ki buñ ko topone élection yi ñi def 2014 sax waruñu ko won def parce que biñu défé ñom niñ ko xalaatee ki mhm. boko xolé boy dem ba yow li wo nit ñi lérul sa bop ñu sét tour yi dëkk yi pàcc yi ni ñu leen war a tuddee. yow xam nga fuuta nga bopp. fii liggéey bi sottiwul woon. liggéey bi. sottiwul woon man kii waa waaye dañ ma mos a woo bi élection jeexee ba defal leen conférence ma ne leen waaw kii laajuñu nit ñi bu ñu leen laajoon nit ñi xuloo di ci am maanaam fii naka lañ koy tuddee pôle nord ñuy wax ni ah Sénégal de nañu def ndànk parce que nit ñi comme ku nekk dafa bari ay xeet bari diina nañu moytu gouvernement da nga war a am fayda laaj nit ñi lan nga bëgg nit ñi wax la li ñu gëm. Mhm. man kii bu fekkoon dañ ma laaj. Mhm. ci lii nga xam ni dënd la carte réew fii ñu bind waxuñu fa dara ñu tuddee ko Pël Fleuve. Ah. ma ni mais laaj leen waalo waalo yi ak waa gànnaar waa Loodo fii ñu ni Pël euh, nord est ma ni leen ñoo tax duñ ko tuddee Fuuta fii ñu ni duñ ko tuddul tur ñu tuddee ko Pël Sénégal oriental ma ni mais yéen laaj leen nit ñi penku ndax gi di maxa ndax nit ñi la kii liggéey bii mm. fii ñu tuddee ko. pôle centre euh, sud Mani, mais si Saloum à nañ fi puis pôle sud ci suufa suuf ma len leen Sénégal nañu laaj nit ñi même boru Ndakaar ñame wuñ ko tudd ñu wax fi nan lañ koy tuddé ma len mais lu tax duñ ko tuddé bakkanu bakkanu bakkanu réew mi wala ko xam nañu bon bi wul won ñu ni nañu dem élection man élection yi bokk na ci gis nga sama sama photo ngi ba ñu ñun man man élection bu amé ci Sénégal ñaari bërepp mëna fa bokk ndar ga ma juddoo màgg fa yaroo fa bu ma neexee ma dem fa nekk fa candidat wakam yi nga xam ni fi laa dëkk léegi su ma mbokk lébu yigal kii élection yi bokk naa ci xam naa na mu demee ak lu mu jur tey jii tëli ya baaxuñu dispensaire baaxu fa damay nañu def xayma ñi ñu faloon lan la ñu def waaw bu ñu ko defee liggéey bu ñu defoon ban liggéey wala ñuy woowaat nit ñi lii waroon nañ ko def defuñu ko léegi ñoo ngi sëpp xëccoo bi dana am cëppaxoo bi amna lan lay juri est-ce que ñom am nañu xaalis bi ñu wara am waxtaan yooyu la wara waxtaan. justement laata ñu dem si xaalis bi xam nga bu puisque nee waxtaanuñ si legi ñuy xëppoo di dem te fu nga xamni ni. mais puisque nag dialogue ah, national bi bi proposé na. waaw Sénégalais bu nek legi am nga sañ-sañ. waaw posé sa liste ne da nga bëgg nak maire. deug la buñ ko défé waaw Sénégalais yu bëri mun nañu yew jóge fi dem présenter ci élection yi. waaw est-ce que pour réew mi attan na loolu est-ce que liste yi ñu war def atal nako est-ce que dañu wara a def filtre ci élection yi wala déet est-ce que dañu wara a def parrainage wala déet. loolu kay waxtan bu am maanaa xam nga saytu wax nañu saytu rew da ngay saytu legui nan lañ fay demee ak liste ni muy demee ak su fekke itam da nga fa am loy tek bala ngay ñew euh bok nu muy demee yooyu yëpp dafa laaj waxtan loolu tax xam nga ki xam nga yow da nga ma indil waxtan xam nga man bokko na ci assises nationales lii lañ ci wax li nga xam ni buñ ko toppee problème du am dañ ni Sénégal xam nga dafa am ñetti pàcc yu mag mbirum politique mbirum saytu koom-koom ak euh, euh, maanaam réew mi ni mu demee lii la ñu wax dañ ni pour dama koy wax ci français yow comme dégg nga wolof nga tekkal ko nit ñi dañ <laughs> voilà dañ ni pour un aménagement du territoire pertinent au plan économique social équilibré articulé aux espaces voisins ce qu'il faut un il faut mener un dialogue objectif et bien informé. permettant de prendre en compte l'équilibre au plan national en veillant notamment à ce que toutes les villes les zones rurales les régions du Sénégal soient traitées de façon équitable dans l'allocation des ressources publiques et la dotation en infrastructures et services de base Muni, il faut bâtir des consensus forts pour reconfigurer le découpage territorial Organiser les synergies selon les potentiels du développement et rechercher les complémentarités avec les voisins immédiats de la sous-région et rationaliser l'implantation des équipements sociaux de base, administration, santé, éducation, hydraulique, de manière à en faire bénéficier toutes les populations. yow qui tekki ko ci gox yeeg goxaat yi dem bu dul loolu ku fi ñëw itam ni wax am naa programme man mën naa changer te waxtaanoog nit ñi pour ñu jëm ak ni nga ko waxee ni tànnum njiit bi mais yii fu say taanee rek. dangay wax lu nga xam ni xam nga nax nit ñi dañ ko war arrêté ci réew mi nañu wax naka lañu ba xam nga fan yi dangay ngay yow suba ñu nii léegi pàcc nañu fii gi dégg nga mbirum sàngal kambeeg yooyu. xii nga xëccoo boobu ak jaxasoo bi mu indi. Si sax parti au pouvoir ak opposition mais ci parti au pouvoir nous deful dans dana dans dana toj mi réew mi gis Sénégal rek la France la Espagne France, la jamono ji ñuy wax. Hum. France xam nga lu ñuy xam nga am ñu nga xam ni ñoom Macron yooyu ñoo wax ay Napoléon kër gi am ñu nga xam ni waxtaan wi ñuy wax commune de Paris am na ak juróom fukk lu rëy lu amoon ci àddina mooy Paris. dëkk ba dafa ñëw liggéeykat yi ni dañuy moom seen bopp ànduñu loolu tey jii ren ji ñu bare moom la ñuy feete France am na ñu tey lii la ñuy feete Chine ak ni muy dégg di rëy commune de Shanghai pourquoi il doit y avoir communes yi gérer seen bopp waxtaan woowu la ñu war a waxtaan Sénégal dafa nekk ci àdduna ren jii nit ñi lii la ñuy waxtaan donc waxtaan wi yemul ci Sénégal rek dëkk yi réew mi ni muy doxee ak nu ñu fexe ba juboo ci ak déggoo ci kenn bañ a indi mbirum buur ak bumi amal manafi fii ndey ji réew mbokkaam ba ma dëkk frais yi xale yi dañ leen di laaj la ñu bëgg jigéen ñi dañ leen di laaj la ñu bëgg loolu la ñu war woo nit ñi bu ñu bëggee réew mi jëm kanam et dëkk yi ñu dëkk mu doon dëkk yu neex tëli yi baax waaye ñëw di laaj xaalis kenn seen mandat yi soxo ñoom ñëpp jeex na bu yàgg boobu ba léegi tooguñu wax nit ñi lu tax ak lan la def ak fu ñu jëm loolu tax élection yi di ñëw am na maanaa xaw nag ni muy demee kenn xamagul sax nu muy demee ñaata nit lañu ñuy laaj kuy bokk li si ni muy demee waaye nañu waxtaan d'abord ci li nga xam ni moom la ñu wax nu ñu koy defee ak nu muy demee bu dul loolu eh, jaxasoo bi dana am. Adama maa ngi lay nuyu yaa ngi doog na studio bi ñu ngi jégalu ci retard bi ndax embouteillage yi. Euh, kii mu ngi doon laajte euh, balaa ñuy dem élection yi est-ce que yéen maire yi. def ngeen seen bilan wax population bi loolu defal population bi bi ngeen toogee foofu ba léegi liggéey bi ngeen liggéey bi lan la balaa ñuy xool kala ñu war a wóoluwaat. jërëjëf Alassane man may jéggalu ci retard bi euh, di leen nuyu di leen santuwaat encore bon euh, beaucoup de choses sont en train d'être dites nag il faudrait que ñu xaw a structurer un peu parce que d'abord la question c'était est-ce que war na am filtre filtre waaw ak parrainage ak yooyu oui filtre filtre de manière générale ñaari filtre moo fi am ndax nit ñi mun nañu bu fekkee ne dialogue national bi dafa ne

yan critère nga war a remplier noo fay demee noo fay demee. critères yooyu dafa war a am filtre ñun jàpp nañ ne dafa war a am filtre élection mënuñoo dem ci benn dëkk boo xam ne euh, ña fay voté matuñ 2000 personnes 50 personnes taxaw ku ne mën a man a loolu loolu vraiment dispersion la amul njëriñ noo koy filtré nag am na yoo xam ne nii xalaat yi génn am na nuñ ñu filtré woon élection présidentielle yi gis nañ ko am na ñu ko ŋaññi am na ñu ko rafetlu mais ñi ko rafetlu moo ëpp te loolu mooy démocratie euh, rafetlu nañ. caution parce que dañ jàpp ne nit mënoo jóg rek taxaw ne mën a mën a te am na loo xam ne nii yow sa bopp mënaloo ko sa bopp caution bi fu ñu koy fixé loolu waa ministère de l'intérieur ñoo ko xam ñoo koy fixé gannaaw bu ñu ci waxtaan ak ñi ñu war a waxtaanal ñu ñu ko bokkal ñi ñu ko seqal war na am aussi parrainage parce que parrainage dafa baax ci lépp France gi ñuy wax nii mais France boo fa bëggee nekk euh, maire wala boo fa boo fa bëggee nekk président la République da nga da ngay am parrainage yooyu remplir sunu naataango bi fa nekkoon Ramayade bëggoon nekk président de la république parrainage ko kale te kenn waxu ci dara ci démocratie la bokk donc parenage ci démocratie la bokk moo tax la décision de la cour de la CEDEAO ñu ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg parce que loolu du droit aussi caution bi montant bi mu war a doon parce que maire nag dafa war doon koo xam ne day ñëw dimbale ci askanam mais bu fekkee yow li askan wi yor yaa leen ko gën a soxla mais boo nekkee seen maire. la nga fay wacc du bari bu dee dana am loo donc il faut que mu am loo leen tane te loolu day aussi ci caution bi. nga xam ne kii fa la bilan bi justement parce que dañu constaté maire yu bari du ñëpp am na maire yu bari ñoom dañu dugg ci politique bi dem maire askan wi lu moom ñu jël ko. waaw loolu ci je bi la indi dara askan wi. Ah, boo demee seen localité. <laughs> doo fa gis benn projet bu baax. suuf si rek la ñuy jaay. mais indi ay problèmes yu bari ay conflits yu bari foncier yenn maire yi def. loolu li que je indi mooy l'absence du vote du maire au suffrage direct. parce que dafa am maire yoo xam ne nii nag kat seen place su maire dañ ko daan foqar ñi wala dañ ko daan jënd moo tax delloo si indi affaire delloo si corruption bi doon am si conseil municipal bi pour ñu jàll bon am na ci am en tout cas bari na ci man am naa ci ci biir suñu département de Foundiougne am nañ ci ci département ba dugg am na fa mais jàpp nañ ne bu fekkente ni li nga xam ne am na consensus changé nañ code électoral bi dugal ko ci biir nga xam ne maire bi population yi ñoo koy tànn kuñ tànn mu nekk tête de liste majoritaire bu gañee mooy nekk maire du toogaat ñu koy fal day toog rek préfet wala sous-préfet investir ko ñu door a fal ñi ci des loolu bu ñu ko jàppee def naa ne daañu commencé am maire yoo xam ne nii duñ ñemee def leneen lu dul li askan wi leen fal bëgg. mais pour le moment amagul. dina ñëw parce que am na waaye voté guñ ko. non xam nga actuellement nit ñi ñoo yàkkamti. am na importance quoi. waaw nit ñi ñoo yàkkamti on est dans on est actuellement dans un processus. processus bi première étape bi c'était la date des élections. Il y a mm. eu consensus sur la date d'élection, à quelques jours près. Hein, il y a vraiment eu consensus. Parce que ni le décembre, ni le janvier, mm. le consensus là. Ensuite, les modalités, les modalités, c'est le ministère de l'Intérieur. Nous avons là-bas des agents, des, cadres de l'administration rompus à la tâche d'organisation d'élections. Nous avons organisé l'élection, nous avons nous avons pour nous organiser élection le 23 janvier. d'ici là li nga xam ne ni juboo nañ ci dinañ ko tënk code électoral bi war nañ ko modifier sur le mode de scrutin ak peut être yeneen yoo xam ni nañ ci code électoral boo modifier il faut nga dem assemblée nationale faut nga koy modifier mhm. so pare il faut nga def loi promulguer ko donc fii ak élection bi ligai bu tar mooy xaar waa ministère de de l' intérieur nañ leen leen may ñu liggéey ko lépp dina génn caution buy génn aussi dinañ ko fixe euh, montant yi communiqué yi jàll yi du ci benn bu baax mhm. des fake news mhm. communiqué yi ko bind signé ko ministre signé ko avec un arrêté jox l'organe ko yeen organe de presse yi. ngeen ko à jours des élections la war a génn. loolu war na à 50 jours des élections mais mmh. code bi war nañ ko modifier voter ko à 6 mois des élections mmh. loolu la directive CDAO bi wax mais directive CDAO bobu mën nañ ko passer outre si on a un consensus loolu dañ koy fàtte wax nit ñi. Mmh. bu un consensus amna à 3 mois des élections mun nañoo def lu ñu neex mais ci kaw majorité bi ak opposition bi mais on a toujours le temps de faire ces changements là Voir aussi ci acte 3 effectivement il a raison hein. professeur l'acte 3 en 2013 pareegul dem élection dans la précipitation parce que le président avait à cœur de respecter le calendrier électoral parce que c'est un républicain et l'opposition voulait d'art que aller à l'élection ñu tënk ko ne buñu paré def la phase 2 de l'acte 3 phase 2 de l'acte 3 le ministère de l'intérêt séminaire def les les les représentants des collectivités territoriales ont nañ ci ay séminaire retour yi président jot na si li des kon moy ci waxtaan bi ñu boole woon ko ci dialogue bi mais dialogue bi dañoo jël benn point rek ngank ko ngank ko datu passé à côté de beaucoup de choses ci dialogue bi ci loo xam parce que tey maires yi seen compétence yi dañ ko a changer dañ ko a tey ñëpp foog nañ ne mairie ñoo yore éducation euh, supérieure lycée yi te yoruñu ko ñëpp foog nañ ne mairie ñoo yore élevage yoruñ ko ñëpp foog nañ ne mairie ñoo yore jiw beeg engrais beeg agriculture te yoruñu ko ak yeneen ak yeneen donc ñun ci sunu bilan ci sunu évaluation avec le la la CNDT et le haut conseil des collectivités territoriales am na ay rapports yu bëri yuñ ci def jox ko le le président de la république. est-ce que bu ñu ko yokkalee euh, maanaam compétence yi mais duñu duñu gën a bëri ay coow parce que déjà maire yu bëri lañ jox déjà.

assainissement bi mun nañ ci waxtaan yi mun nañoo téye bu baax assainissement à condition que moyens yi nekk assainissement ñu génnee ko ci ministère bi jox ko maire mhm. mais bu fekkee moyens yi dafa nekk ci ministère bi euh, euh, coow li nekk ci maire bi pënd bay bëri rek liggéey du am mhm. mais amul lu fi maire yi mënta yore mhm. l'essentiel mooy bu ñuy jox maire bi compétence neen ko joxaale ressources yi ci dem ak techniciens yi koy encadrer parce que tey ministre bu fi nekk du yow kenn mën dara dañ laa jox programme jox ay technicien jox la ay ressources le malheur au Sénégal c'est que nous les maires on gère que des difficultés les ministres gèrent des programmes et des budgets loolu mooy différence bi ñun coow li ak jafe-jafe rek leen gérer ministres yi ñoom ñooy gérer koom gi ak programme yi. mais bëgg naa ñëw ci mbirum élection yi. Hmm. yéen yaakaar na élection yi. avons une élection, nous ci une année ñu avons ko ñu def élection yi. avons une élection, nous tas at élection. ak avons une élection, seen avons une jël élection yi ñu def ko même année. waaw li waral loolu. xam nga. <clears throat> naa naa la tontu ci loolu euh, bala ma ci tontu ma euh, nuyu suma nattangoo sëñ Cissé topp ci li mu wax maanaam ñu def ko benn par benn ba ma agsi ci tontu euh, bi nga mujj laaj ak itam li nga wax ci mbirum naka la ñuy fexe ba indi ni ñuy seggee mbir mi mu bañ a jaxasoo parce que jaxasoo bi moo tax uh-huh. boo c'était résultat yi amoon ni gagné ba léegi maire yu bari bo ci waxtan koo ci boo wax mu mu wax la ni la xam na ni bu fekkone moom ak làngam rek du falu waye day ëpp touti ëppale ñeneen yi fo jaar nga tok waxtan ak ñeneen yi. lolu li ko indi moy li li baril mbir bi ak jaxaso li ma lay wax xam naa ko parce que comme ni ma la ko waxee élection bi ma njëkk fekkee ci réew mi boo wax gone la 1960 gis nga jaxasoo bi amoon ak xëccoo beeg la fa xew booba PA yi ak parti euh, socialiste UPS euh, ak bi mujj ñaar yoy rek laay jël comme repère pour du Sénégal ba légui bi mu amé ba légui ni mu demee légui ñu waxtan ci mbirum xam nan lañ koy défé kañ lañ koy défé ak nu muy demee gis nga lim dafa am mana démocratie bi ñu jàngal xalé yi ba ñuy jàngal université ba lañ wax démocratie ñuy jàng yoon dañuy wax pouvoir du peuple par le peuple démocratie moy ñi nga xam ni bindu nañu. ñu bind sa tur. Uh-huh. nga am carte d'identité di wax boo ci boo ko bokkul bokkuloo bokkoo ci bon boo ñuy waxtaan ci élection dañu seet lii nga xam ni même CEDEAO bi bind na ko ci rapport bi ak Sénégal tey mbir mu waxtaan boobu daañu ci la carte yi nu muy demee xob yi ni muy demee ak leneen ak yeneen ndaxte euh, démocratie mooy yëngatu ngir bokk république bokkul ak sax démocratie uh-huh. nawle ndax nit ñi yëpp man. yow am nga carte am naa carte ndax daañu woote yooyu boo ci waxtaanul da ngay indi coow parce que élection yi mujj boo seetee li muy doomu réew mi xale yu bare dañ leen xañ ñu woote jarul may dellu ci loolu parce que ñun ñëpp gis nañu élection yi mujj na mu demee kooku bu ñu ko waxee xam nga man kuréel bi ma bokk dañuy léegi su ma fi jógee xam nga fi ma jëm dañuy def benn pétition xaatimandoo ñu doomu réew mi wax ñoom lan la ñu bëgg kooku mën nañ ko fexe ba nit ñi xam fu ñu jëm ñan ñooy tànn nag ak ni nga ko waxee segg bi segg bi xam nga réew yi léegi si sa wax na dëgg réew yee bare ni ñu koy defee am na réew yu nga xam ni dañuy seet borom baat yi borom domb yi. ñu ñooñu. dañuy wax ni Seydou wala kii kooku itam am na ñu koy def mais am na yeneen yu ñuy def am na ñu nga xam ne dañuy seet mag ñi sa réew dëkk ba aat yi xale yi ak jigéen ñi ñu laaj leen kooku xam nga beneen yoon la itam.

dara parce que yenn say sax dañuy jaay souf se jaay tol yak bon nañu waxtaan comme ni ko buñu et puis nañu laaj wa réew mi waxtaan yi doon ñi am parti rek fi may ak euh, naka kañ luñ koy défé légui comme comme comme daf ci am élection Sénégal

ñett yëpp man maa la wax loolu te ñu ñoo ngi ñaan nit ñi ñi si ànd wax ak ñun. yan yan bii maire yi. ah maire yi waaw. Mhm. premier premier trimestre. di nee nañu janvier nañ ko def lu tax député yi du ñu wax ni déjà. après ñu troisième trimestre ba ñu def député yi. Mhm. président de la république ñuy wax ni xëy na mandat moom si bopp sax xamuñu comme kenn waxagul ndax moom bëgg na mandat. deux mille vingt troisième mais na wax ni moom d'accord na si mais ku bëree Sénégal ñu toog juróomi at yi nga xam ne dootu am élection.

Sénégal mën na une élection anticipée mais à condition que acteurs soit d'accord Je ci. waaw clarifier rek. élection mairie élection euh, élection député présidentielle. trois mois yu avez. ñu def présidentielle bu présidentielle donc anticipé lay ah parce que Madame, et puis bu un avantage troisième mandat. parce que nous considérons que nañu ñëpp jéggal loolu. ñu fàtte loolu. Mhm. jaxasoo bi amoon nañu tegaat carte yi nit ñi élec booy élection anticipée kay mais am na ci réew yu mu am. waaw loo tontu ci loolu. pour quel est le problème euh, mais euh, euh, Alassane. Mhm. man dama jàpp ne li nga xam ne nii dafa taxaw tem. waaw taxaw tem de moom la ñu li nga xam ne yéen dafa taxaw tem. waaw tey tey tey tey. waaw dama yaakaar ne ci loolu leen war a focus ba noppi ba daan ko door a jublu ci leneen maanaam mënuñoo toog tey di xalaat nu ñuy régler. alors que li ñu taxaw tey réglé guñu ko li taxaw tey mooy lan mooy ne élection locale mm-hmm. ñu koy woowee élection des collectivités territoriales renouvellement conseillers municipaux et conseillers départementaux mm-hmm. loolu lu taxawoon la depuis 2019. mille 2020. neuf defuñu ko deux nag ñu ne dinañ ko def en janvier ndax juboo am na te def aussi ma rappelé ko du ci coobare gouvernement bi du ci coobare euh, majorité présidentielle bi 2019 ministre de l' intérieur Aly Ngouille Ndiaye pare woon na pour organiser élection ba génne modalité yi coow li ne kur wax parrainage bi naka lay demee wax aussi caution bi naka lay demee lépp a ngi fi opposition bi ne demuñ nañ toog seetaat ko ñu toog seetaat ko seetaat bàyyi ngi door a sotti pare guñu ci loolu ñu bugg ñoo indil législative day teel nañ jublu ci li nga xam ne nii deux ba léegi ñu ngi ci. Ah, te dañuy prolonger député yi encore maanaam. bu ñu bu ñu wax kañ la ci kañ seen mandat jeex non maa ngi ñëw xam nga prolonger xam nga lan ngay prolonger lu jeex. quelque chose qui est arrivé à son terme. Hmm. mais quelque chose qui n'est pas encore arrivé à son terme. Hmm. wax di ko prolonger sax jaaduwul. parce que dafay mel ne yaa ngi ubbi buntu possibilité prolongement boobu xam nga yéen lu ci nekk yéen a koy indi xam nga tey ñu ngi toog di wax waxu prolongement loo xam ne jeexagul sax mais lu jeexagul nu ngi koy prolonger parce que mandat député jeexagul mandat député jeexagul ñu bëgg ko ñu bëgg a waxu prolongement. mais war nañu xam kañ la ñuy def élection bobu war nañ ko xam légui lu tax ñuy xaar ba lu tax ñuy xaar ba ba ba ba. Sénégal war nañu xam kañ la ñuy wote wat élection bobu jusqu'à preuve du contraire. waaw kenn jàppul ne war nañ ko repousser. loolu ci yeen rek la nekk ci seen fiction. parce que euh, parce que déggu leen fenn fu pouvoir bi waxee de élection boobu dañ koy repousser. mais di déggu leen fenn fu ngeen dégg déggu leen fenn fu ñu waxee ne élection boobu kenn du ko organiser kon dañuy bàyyi bu ñu nekkee ci mbir di ko togg ñoragul. ñu dem ci leneen c'est-à-dire diversion boobu la opposition bi war a bàyyi parce que am na loo xam ne ni aussi boo bëggee crédibilité da nga koy nangu tey ñu ngi wut élection local yi def leen lu ngeen mën pour gagner le maximum de commune suñ paree ci loolu wax ci leneen. parce que ñun ci loolu leen jàppale du ngeen ñu divertir fenn parce que li ñu bëgg mooy gagner toutes les communes du Sénégal suñu paree teg député yi gagner tout les départements du Sénégal suñu paree door a wax waxu présidentielle mais fii ak loolu dafa jaaduwul sax rafetul sax ñu fi wax yow mën ngaa gagner sa mandat confortablement toog di gouverner ñu ne la da ngay organiser élection anticipée waaye wax jooju bu mu jib waaye loolu rafetul loolu baaxul alors que élection yi nga xam ne nii jineen a ngi fi defaguñu ko yu jeex nañ njëkkee ci jeex def ko bi ci top bu ñëwé ñu def ko à l'échéance bu paré paree dooroo waxu présidentiel à son échéance Il y a aucune raison au Sénégal qui justifie des élections anticipées ab fortiori présidentielle légui est-ce que mun nañoo organiser ay élections, ñaari élection ñetti élection ci biir année bien sûr le ministère de l'Intérieur en a la capacité le Sénégal en a les moyens mais à condition que les dates soient respectées on ne va anticiper aucune élection ici parce qu'on n'est pas en situation de le faire, on n'est pas en euh, résurrection, on n'est pas en crise. Mais, rien, mais ça, c'est rien du tout à la portée, c'est à notre portée. Mm. C'est à notre portée. C'est-à-dire que am nañu organisé, organiser ñaari élection une élection Donc, question boobu ñun soxlawuñu une kenn pour organiser une élection sunu mm-hmm. budget li bu est-ce que duñu di dépense yu bari ci finance publique yi. ba tey loolu du dara loolu du xaalis bu bari du xaalis bu takku nit ñi ñoo foog ne loolu alal mais loolu du dara loolu du xaalis ci. parce que élection yi passé locales yi bu ñu demee foofu. liste yi nu mu bëree den saa même pas ba ngay jël jël jël jël ba xamatoo looy jël. waaw mais loolu parce que absence de filtre bi loon et ba tey def nañ ko te côté wuñu ñu euh, li li ñu foog euh, euh, bii passé en 2014 def nañ fi ñaari élection def nañ élection locale def élection législative te pourtant sunu xaalis dañ ko dépensé organiser nañ ko ça a bien réussi donc waxu xaalis bi nañ ko teg fële am nañ xaalisam waxu logistique bi dañ ko teg fële am nañ logistique bi xam nga li ñu bëgg mooy déggoo consensus leen bëgg nag opposition bi ñëw ñuy wax ci li ñu war a wax tey affaire découpage yi ñuy wax de Dakar wax yooyu dañ ci war a toog ñu waxtaan ci bu baax parce que tey découpage bi du Dakar rek le ministre Omar Gueye amul fu mu demul ci région de Sénégal yi il a sillonné les quatorze régions fu mu toog ñu ne ko le premier problème majeur des communes c'est l'incohérence du découpage territorial bi fi Ablaye Wade defoon ak Aliou Sow loolu correction boobu ci leen nekk euh, malheureusement pour lui il a commencé par chez lui euh, coow li topp ko mais découpage bi fépp la am problème et ku fàttaliku bu baax xam ne Bambilor Sangalkam nañ ko daggewoon dara baaxu ci donc bu ñu ko rétablir nit ñi ñoo bëgg a euh, naka leen wax naax rek mais kenn fàttewu fi euh, nañ ko daggee woon te tey nañ xool ndax dagg bi ñu ko defaat nii est-ce que c'est pas plus équilibré loolu la nit ñi war a njëkk xool bu ñu xool ne kii génne nañ fii dugal fii génne fe mais tey li ñu proposé nii dañ vérifier équilibre territorial bi est-ce que c'est pas plus équilibré te ñu jàpp ne nag loolu amul fu mu amul ci Sénégal kon ñu ngi ñaan ministre bi aussi mu bañ a yem ci moom rek parce que bu yemee ci moom dina naqaree défendre donte li muy def dëgg la na ko def fi mu fi mu toog ñu wax ko ko yépp na fexe ba ñu defaat un redécoupage qui soit plus cohérent pour la viabilité de nos territoires waaw dañu gis que euh, gouvernement dafa commandé woon benn plan d' aménagement des territoires xam nga ne agence nationale d' aménagement moo ko def. Hmm. agence bi fépp fu gàncax am ci réew mi wane na richesse yi am ci réew mi fu nekk moom cohérence du développement est ce que découpage bi ñu war a def warul épouser plan boobu pour wane euh, commune bu nekk yan potentiel di dem yan la ñu mën a exploiter foofu. Hmm. parce que plan bi boo gisee nee nañu par exemple euh, fale ca Louga am na silex silex mooy benn matière bi xam ne mu nga defal ay verre. kaasu ñu naanee ataay fii vitres yëpp mën nañ ko defar foofu ci Louga est-ce que waruñoo xool ñu créer usine bii defar ay loolu ci Louga Sénégal da ñu bëggee vitre am ko ci réew mi est-ce que loolu la war a topp pour développer réew mi waaw xam nga <clears throat> Alassane bi bay door waxtaan wi euh, waxtaan mooy ñu wax ñu tànn li ci am maanaa euh, Sénégal suñu réew fi mu toll waroon na ko weesu yow yàgg ngay tukki tey Amérique képp xam na seen élection yeneen yi ñëw kañ la bés ba sax xam nañ ko altine lay doon def naa fa ñaari at France ñëpp xam nañu élection yi kañ lay am ku yàgg fekkee waruñu yaakaar nit mën nañ ko nax nit boo ragalee wax foo jëm ragal dëgmal am na looy nëpp bon loolu mu ngi sunu kanam daa fi daa ñuy woowaat benn bés bu ñu waxee ne kañ la def folum député yi kañ lay dem ak yooyu. Mhm. daañ bu boobaa. daañ ci waxtaan. waaye bu ñu neexee ñu ni war nañu xam kañ la ñu koy waajal waajal ko président itam war na wax tey moom réew mi bu ko neexee bu mu bañ a wax waaye ñu bañ ñeneen ñi wax ni lii bëgg naa xam kañ la. Mhm. waaw ndax borom borom kër. droit la da ngay am fayda et sax dafa normal sax. parce que yow dañ la dénk da nga xam dañ ko jombé yow buñ la dénkee da ngay war ñi la dénk nga weg leen nga wax. looloo tax parce que da ngeen bëgg lu ñu waxé élection locale yi le 23 janvier lay am. ñu wax élection député yi. mais mais téere bi tel date lay am. téere bi boo ko jàngee présidentielle bi tel date lañ ko lañ ko lañ ko. téere bi bi boo li muy mujj wax. dafa ñu won xam nga bi bi muy wax. li muy wax yëpp ngi wax élection yi dañ ko war def 2017 parce que booba bi mu koy bind ñëpp yaakaar nañ ne ñi waa ji at yi muy wax daf lay def bobu xam nga am yeneen yu nekk ci suuf 2017 xam nga élection amul. lepp li ci bind 2017 la wax ñu ndax ñu ndax euh, réew waa réew mi yóbbu leen pousse len ba 2019. parce que yéen da ngeen ragal élection député buñ ko waxulee ñu xaa ñu dañuy ñu bett leen. waaye lii lii du lu bees ci langue bi. 80 euh, année 96 yi ñaata yoon lañu ñu fomm élection ya ah. xam nga xam nga est ce que jotul léegi ci réew mi. waaw ñoom consensus bu clair. si élection yëpp. kenn bañati ko laal ñu bañ a laal ci élection yi. dëgg la liñ ko muul. oui Sénégal telle dañuy hmm. dem législative. Hmm. telle dañuy dem présidentielle. Hmm. telle date dem locale. mais loolu loolu a laal loolu moom la. assise mais yéen classe politique bi seen bopp yéen seen bopp classe politique bi opposition pouvoir parce que tamit gis nañu ne ñenn ñi bu nekkee ci pouvoir bi. am benn savane benn taxawaay. Mhm. bu nekk opposition beneen taxawaay. waaw parce que donc acteur politique yi ñun depuis vingt ans ñu ngi xool seen politique bi nu muy demee. Mhm. boo nekkee ci nguur gi. Mhm. li ñu def neex na la. boo jógee ci nguur dem ci pouvoir euh, ci opposition bi nga changé discours. loolu moo normal l'incohérence du discours politique. waaw moo indi jafe-jafe am ci réew mi tey. loolu moo tax mu ñu war a euh, xam nga mbir mi du sax parti au pouvoir ak opposition bi rek ñi ëpp ci réew mi mooy ñi nga xam ni bokkuñu ci parti ñu au pouvoir ñu opposition ñoo ñu ëpp ci réew mi. Uh-huh. mais lu tax ñu seen li ñu xalaat dañu fexé ba nit ñi laaj den ko loolu tax ñuy jóg. maanaam société civile bi mbootaay uh-huh. yi bare ci réew mi. nous ci doomu réew mi nañu leen laaj lii ñu fi wax yëpp. seen xalaat buñ ko ragal nañ leen laaj même yi ji def yi koy def du parti rek yi nañu. mbootaay yi ànd ak euh, réew mi ci ONG yi dañ si bokk liggéey ci bon lii nañu fexe ba ñëw tam ñu déglu seen kàddu du dëgg mm-hmm. buñ ko defee jàmm dana am daañu mën a génn ci biir mais kenn bañ a yaakaar ni mun nga nax sa morom loolu nëbb nëbb nëbb foo jaar daa feeñal la ngay mébét bu boobaa day gën a indi problème mm-hmm. bon nag nañu wax mu leer gis nga mbëre arbitre yi dafay am yëpp leer géew bi mu leer bañ a am ay ëkk nit ñi bëre bëre ak démocratie ak nit ñi am looy sa day fitna man loolu wax. dafa clairement. parce que nous heure la ñu mënu ci wax parce que 2024 la mooy ñu naan euh, législative yi tel date la dañ ko war a defee locale yi tel date la ñu bañ a souvent di di di repousser clan électoral bi. di calcul mooy di ki jaaxal parce que ñoom dañuy yaakaar ne ñoom euh, élection député yi da nga bëgg a bëgg a nax leen heure bi jotee ngeen génne ko dans trois mois balaa ñuy préparer fekk door ngeen a ngeen dóor. Alassane. non non euh, xalaat est-ce que est-ce que élection législative yi ñu organisé woon en le 30 juillet 2017 est-ce que organisé wuñ ko à bonne date. si si merci est-ce que élection législative ya ko jiitu woon en 2012 organisé wuñ ko en bonne date. mais ah, non non non non non dañuy wax président Macky Sall en 2012 bi mu gagné l'élection présidentielle la même année a organiser l'élection législative à la bonne date Waouh, les dates Waouh, la 2012. 2017 eu un mandat jeex 30 juillet 2017.

loolu si ñoom rek la nekk si si maanaam. est-ce que du du de crise de confiance. mais crise de confiance xam nga opposition pouvoir bi ak société civile bi moo indi loolu yëpp. waaw mais crise de confiance day jógee ci nit dig la dara te defu ko mais yow nit ki dig na la euh, def na nga gis mu defaat nga gis troisième bi di ñëw egseegul nga am si njort bu rafet moo gën parce que digg def na nga gis mu defaat nga gis tey amul benn raison bu opposition mun a wax tey lan moo war a tax tey ñoom ñu foog ne élection législative duñ ko organiser amul fu ñu ko teg. parce que crise de confiance boobu ñëw amu fi organiser nañ ko 2012 à bonne date organiser ko 2017 à bonne date kon yàlla nañ ñu may tuuti mais li nga xamné ni sombi nañ ko yaa ngi sóor añ ñoragul ngay régler ndek ci suba tëb reer non c'est trop tôt ah, xam nga li ñom ñoko tarrel tàrreel ba ñu yegg ci nak yexi nañ ci nak nañ ñëw ñu bëre dëgg ngeen a yore pouvoir la ngeen wara def pour renforcer consensus bi rassurer ñi xam xamante ne xéena ñom ñoom am nañu njort alors ce que nous koy c'est très simple. Le simple consensus est moo tax tey ñu reporter élection locale élection locale Donc lañ fa Reporte reporter wuñu élection présidentielle reporter une élection législative report élection locale boobu bëgg consensus mo tax ñu def ko bu ñu neexoon ñu def ko 2019 juste bi ñu génnee ci élection présidentielle yi gagné ko avec une forte majorité sénégalais yi joxaat bopp Macky Sall bu ñu neexoon defaat ko ci période boobu duñ ci mun dara parce qu'on aurait respecté le calendrier te boobu nit ñi jox nañ bopp président dañ koy joxaat commune yëpp ñun nangu toog woote dialogue toog ak ñoom consensus foofu la dooree mais booy ñëw ci dialogue dangay ñëw avec un esprit objectif et constructif ñëw pour ñu tënk dara paa ñuy ñëw di boytu wante di xool ku lu waaye làq avec des esprits euh, de cachotterie non fii ruse amu fi cachotterie amu fi waxtaan rek la bu fàngaaral hmm. nit ki nag mënoo ko forcer ne ko da nga may wax tey tey tey tey gannaaw suba lan ngay togg añ dama naan la xam nga lu ñuy togg rek tey waaw moom ci rek mbuum bu lu ñu ndekkee xamaguma ndax fonde lay doon wala kafeeg mburu waaye tey cere ak buum ni reere raxasul ñëw togg dem leen ngeen préparé wu ji le 23 janvier ngeen ñëw ñu sëgg bëre suñ paree ñu door xool drapeau bu ci topp ñan ñooy qualifié ak ña cay dem suñu paree ñu toog jaari at dem 2024 xoolaat boobu ña cay dem loolu mooy calendrier calendrier noonu leen koy toppee mais mënuñu nekk ci biir pays boo xam ne élection day jot réglé guñu boobu ñu demaat ci beneen réglé guñu non c'est pas possible. mais lan la ñu mën a def Bouba Diop pour ñu renforcer consensus bi diggante acteurs yi. waaw ñu gën a wóolante seen biir. waaw xam nga. Euh, te muy njëriñu senegal xam nga ku ndóbin rey sa maam boo gisee lu ñuul war nga mën moytu du dëgg. Mhm. xam nga fii ñaata yoon la ñuy wax lu nga xam ni ñëpp dégg nañ ko. bu ma fi dellu ci ci ay wax waxeet ak mhm, mhm. affaire yooyu élection man bi laay di kërti kërti juróomi at yenn saa yi ngay daldi wut benn yooyu dañ ko teg fële sàmm sa kàddu dafa baax baax itam bu fekkee ngor ak jom da ngay def lu nga xam ni boo tëddee nelaw fii li ñu mën def mooy xam nga wax nañ ko fii soo bëggee élection yu normal da ngay jël ñu nga xam ni

ci mbir mi ñu juboo rax ci dolli lu tax kuréel yi nekk ci Afrique yenn saa yi mën nañu ñëw bokk ci CEDEAO mën nañ leen ko rek euh, sax Afrique daañu dem ba nga xam ni élection ba dëkk ngi ci Afrique muy am élection normale Sénégal xëy na tam tane nañu bare kooku man xam naa ci dara ndaxte Afrique la ñu nekk dañuy dem ak di si waaye réewu Afrique yi muy Mali kii Côte d'Ivoire ak kii fépp daañu dem ba nga xam ni CEDEAO ak Union africaine war nañu mën di organiser élection yi. non Alassane loolu. waaw waaw loolu nag loolu man xam nga ah, ah, panafricaniste la. Alassane loolu du ma ko bàyyi mu jàll. parce que nag bu la neexee bu la neexee ay. non non parce que ñun Sénégal. CEDEAO CEDEAO. oui war na mën. ñëw fii ñun de bind nañ ko ci document ah. mais ñun de ñun ñun def ba ñëw au pouvoir ci ban élection leen ñëwee au pouvoir. waaye loolu amul maanaa. Abdoulaye Wade nu mu ñëwee au pouvoir. par démocratie. Abdoulaye Abdoulaye Wade mu pour par des élections transparentes. mais koy wax loolu mais man xam nga bokkoon naa ci listu. non non mais kon luñ fi man man bokkoon naa ci listu. Benno yooyu li nga may wax xanaa yow xamoo bu baax. bon bon loo may wax nii. man bokkoon naa ci liste ma ngi woon ci liste mais mais donnez-moi une seule bonne raison. de faire venir la CEDEAO pour des élections Abdoulaye Wade ni au pouvoir Macky Sall non non non waxuñu loolu professeur professeur. waaw wax ñu rek lan moo war a tax ñun Sénégal. waaw ñuy jëli. di jéebaane jikko ñu organiser élection wax a tax. parce que dañuy nëbb lu bare. mais bu ñu ko mënoon Abdoulaye dina gagné Abdou Diouf. waaye boobu weesu loolu bu ñu ko ab Macky xam nga démocratie day dem ba fin. non da ngeen gëm yàlla ñëw rek bëree. ñëw leen ñu bëree pexe yi pexe yi pexe yi dafa bare. CEDEAO Union africaine daañu dem ba ñoom ñooy organiser élection ci Afrique te war nañu àgg foofu nag. parce que fii fii fii mënatu fi organiser élection